waa mouvement taxawu sama gox nekkee ci Mbacke Bawal Tabla Caabi nekk mouvement bu am doole ëmb ay association ak ay regroupement ñoom nag ñi ngi fas yéene takkuwaat bu baax liggéey Mbacke Bawal rawatina gox le di Tabla Caabi ñooy sax nee nañu nañ ba tey sax nee nañu ni ñuy jàppale Mbacke mooy mbooleem association yi fi nekk ak kuréel yëpp takkuwaat bu baax ngir jëmmal diwaanu Mbacke boobule. tey nag dañ fay ñëwoon pour dal suñu journée de lancement mouvement taxaw sama gox dafa regrouper ay association ay mouvement ak ay groupement féminin li ko tax a jug nag lenn rek la mooy lan taxaw sama gox comme lan noonu leen dig parce que ñun dañu constaté ni fii ñu dëkk di Mbacké bokk ci département yi nga xamante ni tey en terme de démographie bokk na si ñu ci ëpp te tey boo ñëwee Mbacké bu ñu nee fii mooy Mbacké yow danga naan déedéet fii du Mbacké ba tax na ñun nag ñu jug taxaw ñun waa Mbacké takku fas yéene liggéey suñu gox bi ñu dëkk muy Mbacke Bawol jeunesse bi yëpp joxante nañu loxo bokk ndey bokk baay xaw sama gox dafa nekk benn structure bu nga xamante ni dafa boole structure yi nekk si Mbacke yëpp siège bi dafa nekk fii si Table Thiaby mais nekkul ni waa Table Thiaby dong la. ñoom nag ñi ngi ŋàññi bu baax doxalin njiitu réew mi ak di jàpp ne kii di président Macky Sall ndax di leen a fàtte wala dañoo bokkul ci réewum Sénégal ñi nga xam ne ne njiitu réewum Sénégal juróom at yi mu fi toog lépp lu fi mën di def waa Mbacke gisuñ ci seen bopp. président Macky Sall bi nga xamante ni toog na fi sept ans ñun gisuñu dara dara dara ci président Macky Sall li nga xamante ni waxoon na ko ñun duñ toogee ñuy dégg ay Promoville ñuy dégg ay couverture maladie universelle ñuy toog di dégg encore euh, euh, stade yi nga xamante ni tey ñu ngi koy réfectionné waaye ñun dañuy laaj ñun waa Mbacké ñun ndax Sénégal lañ bokk wala déet léegi sonn nañ taay nañ loolu moom mënatul nekk léegi nag muy président la ñuy waxal président de la république yow la ñuy adressé directement jeunesse su Mbacké am nañ naqar trop ci yow am nañ naqar trop ci yow. imagine tey boo dee xool dëkk bu toll ni Mbacke Bool département bi ñu ne la yow benn ñaari lycée nga am deux lycée imagine tey ji élèves yi jugee Touba tey jii nii. ñaata nit ñooy jugee Touba tey am problème mu transport ah sonn pour nga jugee Touba ñëw jàng si Mbàkke il faut nga jug 6 heures du matin pour nga mën ñëw dugg à 8 heures loolu metti na trop te ñun jeunesse bi ñun ñoo ko fi jële ñun loolu dañ ci jaar dund ko moo tax tey jii ñu mën taxaw di ko wax président nag moom seul mooy président de la république bi fi ñëw di perte chaque jour commune de Mbàkke di perte département de Mbàkke loolu war na toog mu poser ko sax ñi nga xam ne képp ku fi mën di toogaat benn at lañ may li nga digee boo ko deful dinañ taxaw jàmmaarloo yow fii ñëw un an lañ ko may bu ñëwee toog ah. bu ñu defalul liñ bëgg ñun danañ wàcc sanctionné ko parce que nag élection municipale yi mi ngi ñëw yeneen élect parce que kii gàñowaat forcément dina def référendum bu ñëwee parce que constitution Sénégal yàq nañ ko lii kenn xamul lu mu doon léegi nag dañoo sonn dañoo tay ci promesse yi ak genre politicien yi hmm. ñun politique wuñu moo ñu tax a jug imagine Mbàkke yeneen dëkk yi sans sapeur amuñu ko pour lan hmm. ñaari liste la ñu am sonn nañ mënatuñ comprendre amuñu tali yu baax tali yi fi newoon moo fi nekk ba léegi ñii ñu président de la dama koy laaj moom ci jëmi boppam ñu mu fi teg nii tey lan mooy liggéeyam hmm. lu tax mënul gañe dafa war a toog mu woo monsieur le maire Abdou Mbacke ndax mu woo la DG ba laaj leen li tax mënuma gañe Mbacke dafa leen ko war a laaj